combat ba yàqu na de diggante ki nga xamante ni mooy Boy Niang numéro 2 ak kooku di Balla si kàddu yi nga xamante ni moom la Aziz Ndiaye yëkkati woon rek si diggante combat bu dox si diggante Boy Niang numéro 2 ak ni mooy Tapha Tine wala sax combat bi nga ni moo dox si diggante Boy Niang numéro 2 ak Balla na ki nga xamante ni mooy Boy Niang numéro 2 bu bu daanee ki nga xamante ni mooy Tapha Tine lay soog a bëreel ak ki nga xamante ni mooy euh, tëgg bëgg combat boobee rek waaye Aziz Ndiaye moom na li nga xamante ni mooy proposition yu mu yëkkati woon si diggante Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xamante ni mooy Boy Niang numéro 2 nee na nag position yooyu rek la nekk ba léegi ndaxte li nga xamante ni mooy sport dafa bëgg avancer ndaxte kii bu bëggee sax laaleel wala sax kii di Boy Niang numéro 2 bu bëggee laalee ak ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 faaw mu daan man ak a di Tapha Tine ndaxte combat boobee rek am li a xamante ni euh, mooy sens waaye a làmb ji du benn ndaxte kii a Boy Niang numéro 2 naam sax a kii di Tapha Tine waaye nag Tapha Tine daanu euh, euh, numéro 2 te am ci ndam laan làmb nag dafa di loo xamante ni reenu la kon Aziz Ndiaye sa kàddu yooyu rek boo xool na nga xoolaat naam sax amateur yi bëgg nañ kii di Balla Gaye numéro 2 laa kii di a Niang ndaxte làmb moo ko soxla jamono ji waaye nag Aziz Ndiaye dafa mel ni nag ay kàddoom wala sax li nga xamante ni euh, mooy combat boobu rek ñu bëggoon si diggante Boy Niang numéro 2 dafa dépendre wala sax si euh, sukk dafa sukkandiku si combat bu doxoon si euh, Boy Niang ak Tapha Tine ndaxte Boy Niang bu daanoon Tapha Tine rek dina am a nga xamante ni mooy Balla Gaye waaye nag laaj bi mooy kii Bombardier ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 dañuy laale dimanche bii di ñëw bu si topp tombeek premier janvier 2022 est-ce que Balla Gaye bu daanoo si combat boobu rek dañ ko war a mën a jox ak ki nga xamante ni euh, mooy euh, Boy Niang ndaxte ñoom ñaar ñëpp si défaite la jógee naam sax seen combat la amateur yi gën a soxla waaye nag Balla Gaye numéro 2 bu daanee Bombardier est-ce que dina bëri ki nga xamante ni euh, mooy Boy Niang te Boy Niang nag nga xamante dafa daan Sa Thiès ngir wutali si ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye numéro 2 moom sax ne kii di booy ñaa rek bu bëggee bëreeg ki nga xamante ni mooy moom wala sax kii di Boy bëggee bëreeg Balla Gaye numéro 2 na daan ki nga xamante ni mooy Sa Thiès ndax Sa moo nekk si buntu bi waaye nag Boy Niang numéro 2 moom nag dafa mel ni réussir na ba daan ki nga xamante ni mooy Sa Thiès euh, foofee ca euh, ca Demba Diop la ko daane woon moom Boy Niang numéro 2 ngir fëgg buntu Balla Gaye numéro 2 waaye laaj bi mooy Balla comme Bombardier comme ki nga xamante ni mooy dafa euh, Boy Niang moom nag dafa daanu est-ce Balla Gaye bu daanee Bombardier dina jël ki nga xamante ni mooy Boy Niang